jaajëf tey jaajëf tey sama gars yi man la Mister Shake in the house depuis New York depuis Brooklyn New York ma ñëw defaat leen beneen vidéo ci Ousmane Sonko ndax li ma leen waxoon moom laa fas yéene def digg bor la maa fi waxoon dina defal usman Sonko junni vidéo mille vidéo laa koy defal kon pour pour ma defal ko mille vidéo il faut bés bu nekk ma génne benn vidéo loolu yomb na ci man. Ousmane Sonko mën na ko defal 1000 vidéo té suma ñëwé duma du répété ndax Ousmane Sonko programme mo riche li ñu mëna wax ci mom dafa bëri tay rek tay rek génn nañ di wax ci Bougane Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ni Bougane daf ko fi attaqué wala ñom ñaar bok ñu ngi doon ay xéer xam nga ndax Bougane mo dem ci euh, Kër Massar ci mënd ma nek fa di wax naan buñu ñu mënd bi xam amna ñoo dara ba pare bëgg politique mën na bi ba mu waxee loolu Ousmane Sonko gis ci boppam daal ko tontu na ko ñii ay milliardaires yoo xam ne kenn xamule woon ci politique ñu ñëw di làqatu mais ñu ci bëri Macky Sall la ñu àndal wax ji na kur waaye tey dañoo yeewu gis ne dafa mel ne yàlla fi mu nekk ni dafa jox dëgg Ousmane Sonko ndax buggaan dañ ko bindal lu ñaaw loo xam ne ah ndax moom dañoo bind man Seneweb laa ko liire ñu bind ne dafa am ay ay ñoo xam ne dañuy liggéey ngir moom ah. nekk ci àll ba xam nga ñaata la leen di fay dafa wàññi li mu leen doon fay seen salaire léegi mu ngi leen di fay douze mille francs ñaari junni amiin junni ak ñaari téeméer am na ci ñoo xam ne trent deux mille xam nga la mooy trente deux mille xam nga la mooy trente deux euh, ñaata trente deux mooy mooy ñaata sax mooy euh, ah man nag sama olof moom mooy loolu euh, mooy mooy. juróom-benn junni ak ñaar lay fay ay nit Ousmane Sonko kii Bougane kon bu génnee fii di gén di dem ci Kër Massar ah yow yóbbuwuloo moto pompe man de gisuma moto pompe bu mu yóbbu xam nga lan la yóbbu essence essence nee na essence nii def lañ ko ci moto pompe bi ba xaw ma dafa may xaalis cent cinquante mille la may ma xam nga léegi yow balaa ngay nekk fii di génne ay millions ne da nga koy da nga koy da nga koy def mën bi ba pare di ko fësal

Euh, nu mu tuddati euh, Benno Bokk Yaakaar temps yi may ànd ak ñoom Macky Sall di liggéey ma ne Benno Bokk Yaakaar tasuloo suñu yaakaar Benno Bokk Yaakaar yow lañ doon xaar waaye léegi damaa découragé ci Benno Bokk Yaakaar dinaa leen génneel benn benn doy waar boo xam ne dinaa ci boole Sonko sax ci biir bi tagg ci mais refrain bi ni muy ndara demee mooy Benno Bokk Yaakaar tas nga suñu yaakaar Benno Bokk Yaakaar naa maar mais Sonko démb bu may ñibbi dama am benn genre inspiration way Youssou Ndour bi laa dégg la la moo ñëw sama sama xel nangu dogal bi mooy Youssou Ndour fu mu waxee nangu dogal bi nangu dogal bi xam nga ñëpp xam nañ ne Youssou Ndour dafa bëgg wane foofu ne moom mooy roi di mbalax nit ñi dañu war a nangu dogal Sonko tamit gars yi dañu war a nangu dogal nangu dogal bi bàyyi iñaan bi nangu dogal bi Sonko fi ne boobu laay fi mu nekk nii sax wax dëgg gars yi maa ngi jël ay risque di ko way nii yàlla xam ne ne travail gu ma ko fi travail gu ko mais imaginer leen way boobu moom laa wayal Sonko nangu dogal bi bay iñaan bi bay soxor bi Sonko fi ne nangu dogal bi bàyyi mag idi nangu dogal bi ko fi nee dégg ngeen loolu dinaa ko wayal Sonko dinaa ko defal biit bu neex man maay nee naa leen man maay njaago Sonko ah Pastef moo ko yor xam lu tax ma ne Pastef moo ko yor parce que Ousmane Sonko dafa am yërmande gis nga njiit il faut am yërmande Macky Sall ñun moom looloo taxoon man a ànd ak moom moom ne gis moo ma neex mooy njiit boo xam ne day def ci population ñu koy gis gis nga Macky ba mu defee bourse familiale mooy vingt cinq millions yi muy jox àll bi billahi wallahi taala yi gis nga vingt cinq millions yi muy jox chaque trois mois at bi yëpp xam nga ñaata la mais cent mille yooyu bu leen xeeb gis nga Macky Sall man dama ci am benn nit bu ma xam boo xam ne day laal mais école tijji na amuloon lu muy fayalee euh, doomam ah mais dafa jël vingt cinq mille mu ne vingt cinq mille Macky yi xamu sax fu mu jël fu mu ma jëlee gis nga àll bi tamit vingt cinq millions dafa am solo loolu taxoon ma ànd ak Macky ma ne kii dafa am yërmande waaye mënd bi bu ko xoolee boo ko xoolee da nga naan est ce que Macky Sall am na yéen euh, yërmande gars yi dem leen ci YouTube ngeen xool Dakar Buzz bi mu def dafa naa le onze le onze bii rek la onze septembre billahi say yaram dafa daw 200 et quelques mille vues Dakar Buzz dañu dem def ben reportage bo xamné mais këru euh, kër Massar yi quartier yi dañoo ba fimu nek nekk sax damay réer mais keur yep dafa fess dox mais yo Macky Sall xanaa moom yërmande amul xorom yermane Marème Pay diñu wax né mom dafa bax hein ah, la meilleure euh, première table ñu ko daan gis fépp ñom ñu dem euh, fële def fa ben photo op ben yoon photo op may photo opportunité dem nañ rek wane wu ñu photo len ci mbënd bi mu jeex ñu ne 3 milliards lañ jox nit ñi ana yërmande ñun nag dañu yaakaar ne Ousmane Sonko moom dafa am yërmande ndax koo xam ne dem na ba Casamance toog ci tool bi gis jigéen ñi nan xool leen ñu ñuy sëggee xool leen seen ndigg yi nu muy méttee njiit noonu lay mel njiit da ñëw nga xuus ci ndox bi gis nga Ousmane Sonko dafa xuus ci ndox bi yore kajandoo kajandoo bu mu yor mooy ileer gis nga ba mu nekkee Casamance man bi ñoo naa laa amee sama euh, BFM waaw bi ñoo naa laa amee sama BFM xam nga joolaay lañ leen doon wax faut pas aller au champ sans Kajandu waaw mënuloo dem tol te yoro illeer mais Macky Sall Macky Sall nan ngay demee Kër Massar di sol veste du sol costume mais do sol ce sa sa wala nga sol bu la neex sax nga sol ya xam solo ce treuil wala nga sol jiin nga sol ay bot nga dugg xana gis ngeen soxna Aida soxna Aida dem Mali sol ay bot di jënd ay nak mais gis ngeen soxna Aida tamit gaay yi ni ñu koy commencer dafa mel dañ koy waaj bundu xataal bugguñu mu mu mu dem fële euh, ga euh, magal ngàbbu man dégg naa ñu ne waa euh, euh, safinatul amaan ñu ngi waaj a génne benn euh, ngoon ñu ngi woo taskatu xibaar yi am na lu ñu war a wax ci loolu xëy na dañu bëgg wax ne soxna Aida bëgguñu ko mu gis bëgguñu ko gis ngaabu ndax ñëpp xam nañ ne dafa amoon problème ak ak nu mu tuddati sëñ Muntaxaa yaakaaroon nañ ne nag sëñ Muntaxaa baal na ko waaye bu fekkee ne baalu ko ñu tere ko mais bu fekkee ne sëñ Muntaxaa moo ne bu mu ñëw bu mu ñëw ngaabu loolu moom kenn mënu si dara dañ ci ànd waaye bu fekkee ne dafa am ay nit yoo xam ne dañoo bëggul soxna Aida bëgg ko bëgg ko fexeel bëgg ko génne foofu nangu këram bu muy am foofu këru 200 millions ñu bëgg ko nangu loolu ñun duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg bàyyi leen soxna si mu ngi Mali di indi ay ay ay nagam di yóbbu fële Touba ngeen bëgg ko bu ndaxataal bu fekkee ne nag sëñ Mountakha moo ne bu mu ñëw bu boobaa loolu kenn mënu ci dara ñun dañ ciy ànd waaw ndax sëñ mu sëñ Mountakha ñu mu tudd di soxna Aida sëñ mu Mountakha lay déglu yéen may dégg mais nag dafa am ay politique yu ci nekk ah du ñu tudd tur du ñu tudd mais xam ñu xam nañu lépp soxna ci jàmbaar la man de mooy sama Amazon soxna si mooy sama Amazon parce que baykat bañkat la parce que jigéen ju mën a sëy la bu ko neexoon mu ne sama jëkkër génn na àdduna bu ko neexoon mu ne milliards yi may jox du ma ci jënd ay nag man ñun gis nañu nag yi nag yu commencé nañu génn ay nag yu taaru ay nag yu mat moom indiwul ay nagu fel de ay nagu melentaan moom ay nag yu suur la indi man li ma gis damaa waar soxna si billaahi soxna Aida waaw ñu bëri nag ñu ngi naan ñu ñoo koy dooleel jo ñun dooleel ñu ko ñi nekk ci ginnaawam ñoo ko dooleel te ñooñu tamit ay murit lañ il faut ngeen bàyyi ci xel il faut bàyyi ci xel léegi nag bu fekkee ne moom euh, fële la ndara màggalee Medinatu Salaam wala fu mu mënti doon mais mu dem foofu mu màggal bu fekkee ne dañ ko bul bul indi nag mais loolu mënuñ ci mënuñ ci dara mais en tout cas moom mi ngi def devoir mais nañ jël soit ci Sonko nañ jël ci Sonko ak Macky Sall waaw Sonko daal moo fi ne Sonko moo fi ne ñun Sonko lañu lañu gis pour le moment xam nga man nag man Mamour Diallo laa ci doon rus sama xarit boobu laa ci doon rus mais am na nu muy demee sax man Mamour Diallo ak Sonko mën naa fexe sax ba ñu juboo man loolu lay ñaan damay ñaan mamadou Diallo ak sunku ñu juba man xamna ni billahi wallahi wa ta'ala mamadou Diallo satchu 94 milliards man loolu wax naa ko fii Sonko sax ci bopam moko mom nanguna nangu ndax papa ali ñaan bam ko laaje ah, ne ko mais yow yaa wax 94 milliards way ñaar milliards ka jottu genn génn te ñaari milliards tayu sa lañ ko jox sunku def na ko budé dee sax budé fukki dërëm sax la nit jël bo jëlé dal jël nga man mamadou Diallo ak sunku suma sañu dañuy ku nek retirer sa plainte sunku len rek la bëggon def moy lanceur d'alerte gis na 94 milliards mu ne nan lañ ko wara mëne fayé ben nit xam nga loolu tax mu ne fi njuuj njaaj war na fi am xam nga mom sax dafa ne woon commission sax amul won Sonko lanceur d'alerte la waaye bañu démé ba bu démé mom nak bu démé ba gis ne xeyna limu li amul mais nan nangu rek ne limu mu amul mu génné plaintam Mamour Diallo génne plaintam mo gën ñuy dem ay tribunal ñu ci profité di tecc Sonko diko wax do bok ci élection yi do def li do def gis nga gis nga Djibril War génn fi né Sonko du bok ci ben élection ñun lool lañuy bañ ñun lool lañuy bañ Sonko man daal su ma ko mënoon jubal ak Mamadou Diallo dinaa dinaa ko jubal mais affaire quatre-vingt-quatorze milliards yi man li ma ciy wax wax naa ko ba pare loolu du ma tere ma ànd ak Sonko du ma tere ma ànd ak Sonko fi mu nekk nii Macky Sall bu fekkee ne dafa am yërmaane dëgg Marème Faye bu amee yërmaane dëgg na xool rek ci inondation yi Sénégal ñu ngi dee waaye waaye Sénégal da ngeen ñàkk fayda waa senegal ci boppam yooyu ñàkk fayda man mosuma gis peuple ay nit askan bu bu bu bu maa xalaat dañoo gëm yàlla nag dañoo gëm yàlla loolu la lu am rek ñu ne ndogal lu am rek ñu ne ndogal ñu leen jox ay ay ay ay cent mille deux cent mille mais kër yu yàqu ndox bi nangu kër te xam nga man la moom si soof bébé ñaari at amagul sax ñaari at bu dee waa Macky Sall ana yërmande bi ñu ko xamale woon Marème Faye Sall ana yërmande bu ñu ko xamale mais doo leen génne ndox mi waa directeur ONAS bi ban njëriñ la fi am ñii nga xam ne euh, euh, jaxaay waa jaxaay ñoom ñoo jëndal seen bopp moto pompe 8 millions mais mënuñu ko sax jëfëndiko ndax wa ONAS ñoo ne leen bu leen def dara ñun dinañ ko def ñaari wër nga nek ci ndox ndox bobu dina yak sa kër gis nga buñu démé sa kanam di ngeen commencé gis ay kër yu màbb ci kaw nit ñi man loolu la ragal voilà gaay loolu tax ñu and ak Sonko vidéo yombul mais nañ ko def ndank ndank rek inshallah